jërë ngeen jëf bu ma amoon baat bu jéggi baatub jéggi dayo dama koy jël joggi ci ngir tënkal leen xibaar bi journal La Tribune xëy ak ñun ubbil yéenekaay bi ñaari accident yu métti ñoo am démb ci réew mi benn ci géej gi benn ci jéeri ji yéenekaay bi nañu boo boolee li faatu ci ñaari accident yi toll nañu ci juróom-ñetti doomi aadama li ci jële ay gaañu-gaañu mat nañu juróom fukk ak lu teg journal bi teg ci di ñu tegal ni mbir ya demee juróomi doomi aadama yu bokk benn famille ñoo des ci tali bi ci accident bu am ci yoonu Gossas ñaari xale yu jigéen faatu ci ak gaal gu suux ca Kafountine ak benn directeur école bu watop set place fil mu faatu ca jawbe libération nañu làll koli ak mareetu ñooy ñaari xale yu jigéen yi ñàkk seen bakkan ci gaal ga suux ca Kafountine gaal ga équipe football bu ASC Kerwan la yeboon ak seeni supporter ñu waroon a dem football yi far gaal ga ñu duggoon suux ca île des Carottes ga ca Kafountine ba ñaar ci supporter yi woon ca gaal ga ñàkk ci seen bakkan Cheikh Niass di waa ji ñàkk bakkanam bu yàggul ca kas bu Cap Manuel l'Observateur ci moom la xëy moom dem si yàlla Cheikh Niass yéenekaay bi mi ngi ñuy wax lii ko indi woon Sénégal màggalu Tuubaa gi mu doon wàcc ni ko takk der yi arrêté ngir doon ko contrôle ci kaw tali bi ba ni Diak yooyu yëpp journal bi xëy na dañu ko nittali yaayam di aram ci tiis ak xol bu naqari bi muy dund ak i ronxañam yu feragul yi mu ko booleel waa l'observateur seeti woon nañu ko démb ci ngoon tey ci suba journal yu bari ñu xëyandool xëy nañu ci politique bi doo rek ak Sud Quotidien mi bind ne lu jëm ci élection locale yi déwén ñi tey ci àjjuma ji ci lañ war a ubbi li ñu naan contentieux électoral waaye nag mbir yi naru ta yàgg ne képp ko am lu muy kalaame ci yëf ñetti fan la am ngir yeggee ko président bu tribunal d'instance bi mu wékku ñi wékku ci waa Benno Yaakaar Le Quotidien xamal nañu ne sagara ngay xeeñ ci seen responsable yi Benno yi ci xeex bu metti la nekk ngir bëgg a jiite maire yi gën a mag ci réew mi muy ville yi di Kees Dakar Fatick Ndar Ziguinchor Kaffrine diiwaan yi bokk na ci diiwaan yi ñu gën a teg ay gët Yewwi Askan Wi di coalition ñoom Khalifa Sall bi Vox Populi nee nañu ma ngay gën di yaatal ak langam am na fukki parti politique ak benn yu yees yu leen fekki démb ñoom waa coalition Yewwi Askan Wi journal bi nañu seeni pexe moo di gagné ak candidat bu mu mënti doon wala bu mu mënti bokk ndax ñu gis moo di élection locale yi bu ñu ko gagné ni ñu ko bëggee di ñëw du leen doyum ga lax ndiku ci ne kii di xalifa Sall mi ngi lawal ay bànqaasam di gën di yaatal baasam kàdduy Déthié Fall ci xët bu njëkk yéenekaay bi mu wax ne fan yi di ñëw dinañu gisaat ñeneen ñu fabu ñëw fekki coalition Yewwi Askan Wi Walf Quotidien nañu waaye ñoom waaye Yewwi Askan Wi Bamba Fall mi ñu tànn def ko point focal ca Médina ñu bari ànd ñu ci ñu ànd dem ci Enquête yéenekaay mi xëy moom ci waa coalition Benno Bokk Yaakaar ubbil journal bi li muy waxtaane mooy coalition Benno Bokk Yaakaar li ko tax a gudd fan ne coow li bari na ci seen biir waaye terewul ba léegi coalition baa ngi ne cocc boole ko ki taxaw jonn wutali local yi 2022 yi li ko tax a dëgër enquête gis ne ci taxawaayu président Macky Sall mi ko jiite la Dame Diop mi jiite ministère emploi formation professionnelle journal Le Témoin nee nañu la mu nekk ci ministère ba amul fenn tuba yi paate képp ci boole le ministre Dame Diop di doxal ci ministère ba li mu dëkk ca bawal moo tax ci ministère am ba ay bawal bawal rek la fa yóbbu Dame Diop dafa bawaliser ministère emploi ak formation professionnelle ne mboolem direction ya fa nekk ba ci agence yi banqaaso ca ministère ba ay bawal bawal la ko jox ñu jiite ko mbaa bokk commencé servir ca bawal libération nañu koy jooy yorin wu bonte ñaaw ba yegg ca agence ordonnance de construction des bâtiments et édifices publics fa ngay dëppe bambula ak noos ak ndaataata lax yéenekaay bi nee nañu moo am ci agence de construction des bâtiments et édifices publics njiit la directeur général ba di Hamadi Dieng moo fa tànn ñetti cadre di leen jox ndàmpaay di indemnité individuelle ak mensuelle yu toll ci million bu manque ñeen fukki junni maanaam huit cent mille francs CFA kenn ku ci nekk te ba muy jël dogalub def loole amu ci autorisation bu conseil de surveillance su kër